bëri dem nañ ba léegi ñi ñuy gën woo du nekk sax yi nga xam ne tey ñoom lañ bokkal benn gox waaw ay jàmbur ñooy jóge fële waaw di leen ciblé xam ne ñii manqué nañu doole di leen taxaw te loolu appel la te loolu appel la ci ci CLAF bi ñu jëm déwén mm-hmm. champion yi nga xam ñoo ci war a dugg mm-hmm. seeni mbokk ñoo xam ne CLAF seen national pour ñëpp pour Sénégal yëpp la mm-hmm. nañuy jàppale champion yi ci war a dugg mbokk yi ñu dem ci beneen poule bi du saane kaay nii paas aja bisimilah combat bi nga jëm final la. waaw bisimilah alhamdulilah. Euh, bu ñu jullee jullee si yonent bi sant suñu ñaari sant yàlla. Mhm. waa di nuyu bu baax a sama grand yu ma àndal ñoom Abi Bass ñoom Omar waa di ziare bu baax a baax waa Léona Grand Yoff. Mhm. Euh, waa mafia zéro réseau bi. Ah. ñu waajalu doy waar. du Sane ak ndaxte Kaolack bi mënuñu woon dem. Mhm. waa di ziare bu baax a baax waa Diofior waa arrondissement waa Djilor. waa Simal waa Yaayem waa campement Ndangaan waa Île de Mar Mar Lodj Mar Sulu Mar waa Ñoojoor waa Jonwaar waa Baasul waa Baasar waa Jinda waa waa Joal fàttewuñ leen waa waa Faoy waa Singesin di ziar bu baax a baax waa Lul Seseen waa Caajaay waa région Fatick yëpp waa Mbelaka Jaw waa Pouham ñu ngi ziare ñëpp ku luxum fépp fan si nekk duusaane nekk rek ñu ngi lay ziare bu baax a baax waa Nguñaan mm. waa waa Nguñaan waa Mbusnaam mm. waa sama jigéen xuja ñu ngi lay ziare bu baax waa di lay woo ci combat bi waa di jaajëfal ñëpp assistance yi fi teew yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, di santaat i tamit waa Gaston production ndaxte dañoo def lu rëy euh, dañoo wone ne ay jullit lañu te tamit dañoo gëm dogal lii gëm ndogal kese moo ak jullite la ñu wone moo tax journée bi continuer ndaxte bu leen neexoon itamit journée bi bañ a continuer dëgg la te ñun ñi yëpp kenn du ci wax dara mm. ndaxte itamit dañuy gëm ne lu ñuy lu ñu def lu tegu yoon la moo tax itamit dañuy di delloon njukkal ndaxte def daa raar waa acca di di ziare ñëpp di waaye itamit combat bi moom laa gën a gëm si combat bi ah dernier combat bi. dernier combat bi laa gën a gëm suma combat. ok yaa booy jaxaaw. ndaxte itamit damaa war a wane sama bopp. ok combat bi laa gën a gëm ndaxte itamit ay ndaw la ñu amuñu lu ñuy perdre si làmb. Hmm. kon itamit am-am bi suñuy victoire daa war a tegle di dem di ci ziare itamit ñuy wax si làmb yëpp. macha allah di si jaare bu baax a buur Fadam Doudou Sané mii. Baye Fallou mag bi lambu loolu. Doudou di jaare bu baax a baax. xaaral parce que Doudou. waaw na Pikine xam ne drapeau Pikine lay boot. ok. tay singa la bopp. waaw ca wetu ne ci ginnaaw ëmb seen te ñun bi ñuy def mm. sélection bi. Mm-hmm. mbër bu ci nekk dañ lay jël ci gox. ci benn gox ok. du ñu seetlu arrangé kenn. ok bu ñu jëlee géejawaay par exemple kenn. Mm-hmm. dañuy dem Pikine jël kenn. kon nag moom drapeau Pikine lay boot. ni caatu yarax di boote yarax. ayca euh, Pikine euh, combat Eumeu bi jàll lañ may door a dugal si Pikine lépp Pikine la. ci groupe boobu. ok mhm. ndaxte dañ na doon wax ne del tudd waa Pikine del tudd waa Pikine. Mm. Pikine dama leen di doon tudd mais du ma gis réaction. Mm. te tamit poulain poulain poulain Eumeu la. dëgg la singa laa bokk man bu ma gañee waa Pikine ñoo gañee te il est temps nañu def mobilisation ñoo jàpp bàyyiwaat leen loolu xel ci combat bi am na détail yoo xamante ne tey Doudou Sané bariwul wax hmm. na tey tamit euh, du ñu sikk ku ñu jàppalewul waaw mais ku ñu woo nga ñëw suñu bés dañ lay ràññee hmm. ndax tey tamit Pikine lépp pikin la loolu daa war a dogu dëgg daa war a dogu te tamit dañ kaa gëm man maa hmm. gëm Pikine ndaxte tamit boo bàyyee écrit yëpp soisir doon dem pikin eh. Euh, eh. amaana sax wërsëg ngay dabi foofu mais itamit gëm-gëm bi la ndata itamit euh, ñoom Boy Niang ak Eumeu Sène dañoo def lu rëy geste bu nice lañu def Kaolack mhm. ñëw soutenir ma jàppale ma yàlla sutoral ma ma am sama euh, ndam si sama kaw doomu ndey mhm. waaw di ko masaw bu baax waaw sama waay la sama xarit la sama lépp la <laughs> kii moom xolam daa rafet mais tey moom def maa gagné ndaxte original sol ma sol istibek dala nax waa. waaw daf maa nax te il est temps nag Sibeth daa war a def si ñun de. non kii li mu def ci yéen seen non dafa nang rek kii. waaw wan Xbet ku seetaan lamb ji moo ko jël non wan Xbet baax na ci de. waaw wan Xbet li mu defee. li ngay laaj wan Xbet li mu la defal. Mhm. mooy dafa jël combat bi may ko askanu senegal ñu seetaan. ñëpp seetaan ko Ndakaaru ba Diofior ba Fimela sa mbokk bu ñëw. one x bet moo ko may bu ko seetaan. aja Doudou ñu dem xam nga boo waxee loolu daf may neex ndaxte itamit dañuy dañ may kaañoo si ginnaaw di may wax ne noo <laughs> original du mën a la. waaw mais original bu ñu jàppee fii boo laalee foofu rek daf may neex. <laughs> aja billaahi Doudou njaga comprendre nga. waa aja ñi ciy woo Ibou Diop. Ibou Diop wax dëgg ne yàlla da ciy jàpp bu baax waa Karim Sène. monsieur Babou. waa Birane Birama Sarr borom Touba. parking oto la yor. oto bu may dawal moom ma ko jox ñu ngi koy woo si combat bi da ciy jàpp tout le temps. da ciy sonn waaw euh, sukaay prestige ñu ngi lay woo si combat bi da nga ciy jàpp da ciy sonn mais ñu ngi la ciy wow bu baax a baax Basir yow moom kamba laa lay fekk combat bi da ciy jàpp Kéba Kanté yow moom sa kër laa lay fekk. du nga naanaan bi da nga cee war a jàpp. Mm. Euh, man DV production man Alaaji man kooku lu may sol lépp moom ma koy solal. waaw kooku moom événement bi na ñëpp daw si moom. merci beaucoup waaw Pape Gueye. kooku moom dañ lay sant bu baax a baax. ragaluma la de. waaw Diba Kor. waaw ñu ngi lay woo bu baax a baax si combat bi dañ cee war a jàpp. 14 ay billet la ñu war a jox. waaw bolo ko billet. Diba Kor Faye Assane Boutique. tout le temps ndox ñuy naan yëpp moo koy kii. merci kontaan nañ si kontaan nañ si. monsieur Faye. waaw. combat bi du monsieur Faye da ngi FC Doussane yi yëpp ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax. dàqalaala Jalma ñu ngi lay woo ci combat bi jàppoon nga ci bee. merci c'est Fall ñu ngi lay woo ci combat bi. Assane Seck borom borom Milano fes. am merci. Milano ñu lay woo. ci combat bi tamit kenn la Baye Touré. moytu loxo bi Seex combat portable yor day gaañe Seex Mbeng mu ne ma ñëw ma. saa waaw demal demal famille John. ina sen waaye doy na doy na e kaay kaay kaay kaay du saana doy na doy na doy na Ba Jaxaaw ñu ngi lay nuyu aja ñu dem waaw ginnaaw bañ sant yàlla di julli si yeneen bi dañuy sant suñu ñaari waajur bu baax baax di gën a doole waat sant suñu ñaari waajur bu baax. Ah. sant suñu sëriñ Serigne Bara Cissé. ñu ngi koy nuyu bu baax di nuy waa cees bu ñu jógee di nuyu waa Sénégal. di wax ni Père Gaston na ko yàlla yërëm. amiin waay xaaral ko àjjana. Mm-hmm. di nuyu Makan. Mm-hmm. ak père ñu ngi lay ziar di nuyu ñëpp ñu si plateau bi ak suñu mbokku mbër yi. jërëjëf maa ngi ziar ñëpp di nuyu tamit père Pambay mi nga xam ne moom la àndal. père Sowru maa ngi lay ziar bu baax baax. sama booy yu ma àndal tamit maa ngi leen di ziar caatu booy jaxaaw bébé liiru ak sama chauffeur bi maa ngi ziar ñëpp di béggee ñëpp. macha allah ñu ngi lay béggee bu baax a baax yaa ngi jëm ci sa troisième combat ci calaf bi tey appel bi lan lay doon parce que ñi ngi ñi ngi wax léegi ci yow ci sa côté ci ñàkk jàppale bi am ko Thiès te c'est pas la première fois. ñu hmm, wax ko mais hmm. appel bi lan lay doon. waaw côté boobu moom sant yàlla rek parce que nit moom doo lekk lu dul sa wërsëg kon damay jàpp ne suñu borom lii la ñu wërsëgalee si calaf bi. parce que dugg nañ ci am si ay jafe-jafe mais jafe-jafe sant la. Mm. dañ daan bëree di daan suñu borom di ñu suturaal ñuy am ndam. kon bu ñëwee nii dama koy doolee sant rek. Mm. mais di ko ñaan tamit mu suturaal ñu si combat bii ñu jëm. waaw loolu dong la am li wax. koy woo. Thiès moom ñu ngi woo ñëpp. parce da ngay woote ba sonn mais pour gars yi ñëw problème la. mais nag mm. sant yàlla quoi. dañuy naq saale lépp daal luñ si mën a am rek ñu xam ne loolu suñu borom dogal. mais ku si leen président Habib Niang moom. maa ngi koy nuyu bu baax a baax baax. di nuyu nag samay mag yi nga xam ne dañuy sonn si man ko su mel ni Birane Pilibo xam nga sama waaye SAF waaye école de lutte Samba Diaw maa ngi leen sant bu baax suba nag dañoo am ay journée yi nga xam ne dafa am Thiès ku su mel ni Persid Jaxate moom moo ko tëgg grand combat muy Pambay ak Youssou nduur di ñaanal suñu borom defal Pambay ndam ak Hercule mi nga xam ne ñun ñoo bokk écurie ma ngi koy ñaan suñu borom may ko ndam maa ngi nii ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp dëkk dëkkaan yi may jàppale yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax en tout cas daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla suturaal si bis bi ñu jëm quoi jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax kooku mooy njaga doole jaajëf jaratu ko aca champion ñu ngi lay nuyu ginnaaw baatu onze billahi mina cheytaan rajim maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo toog ci plateau bi mm-hmm. ci jiital Père Diaw depuis Guédiawaay xam nga di nuyu tamit autorités yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale yëpp. macha allah ci mel ne suñu président écrit Mamper Ba. Mamper Ba ñu ngay nuyu bu baax. Mm. di nuyu nag di ñaanal suñu papa Gaston Mbengue bu baax a baax parce que man xam ci làmb ginnaaw yàlla moom moo tax ñu koy ñaanal yàlla na ko suñu borom yërëm te xaare ko ci àjjana firdaws di ñaanal makkan aussi suñu borom may ko xolum muñ mm. ubbil ko ay buntu wërsëg yaatoo yaatu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bi nga xam ne moom laa sol mi sponsor bi ñu koy sant bu xarit la xamante nañ bu baax xam nga ah. làmb moo ñu boole dañuy def fulla ak fayda rek di ñaan yàlla suñu borom may ñu ci kawam ndam incha allah ñan ngay woo ñu jàppale la waaw di sant sama waa président écrit bu baax a baax muy Mansour Ba ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax maam père xam nga sama grand Sadex Babou El Hadj Babou Xaadim Touré ñu ngi koy woo bu baax di nuyu tamit sama waa dëkk waa Ndande Fall waa Kébémer xam nga waa Kell Palmeew ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di wax ne gis nañ seen ñaan yi xam nga waa Serif Ka waa Mirna Ndiol aussi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax famille Dramé bi nekk foofu yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax ndax wax dëgg yàlla yàgg na di ma taxawu di ma ñaanal xam nga di nuyu waa Kër Daawee sama dëkku maam waa Kell di nuyu waa Parcelles Assainies gi xam ne fa laa jógee parcelle 1 ba 26 maa ngi woo ñëpp di sant le roi des arènes Modou Xarañ Lo parce que démb wax dëgg yàlla dafa ma yenn si loon sama dëkk ndànd maa ngi koy sant bu baax di jaale tamit góor a waa waajur mu góor dafa làqoo barki oh. démb démb la woon sax si ñu demoon jaale dëpp jaar ndaan ah. yendoog man añ xam nga loolu geste bu rafet la di nuyu suñu grand papa Sow bu baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm ak xéewal ak sutura ñi nga xam ne ñoom laa àndal ku ci mel ni Aline Mbeng xam nga sooy bu sama mag Modou am Samb ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax Abdou Aziz depuis France maa ngi koy sant bu baax sama frère yi nga ne ñoo nekk Canada xam nga gis nañ seen taxawaay gis jàppale bi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax Fallou Gueye tamit maa ngi nuyu jërëjëf di sama goro yi nag sant naa ñëpp. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf merci jërëjëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax jaru jaru jaru jaru tëgg jaru tëgg jaru tëgg jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaanee nañ bu baax a baax a <laughs> njaga njaga non tëggul de feccul de feccul njaga li ñu xoola salaamaaleykum waaw maa ngi ziar ñi fi nekk ñëpp ah waaw di jël nuyoo di ko teg suñu père jaw mu jàllale ñu ko nekk saal wépp ndax mooy suñu père suñu lépp di ñuy suñu grand gay seen di ziar ñi fi nekk ñëpp dañ jox seen wàcc waay waaw di woo nag sama ñaar accompagnant de guerre yi nga xamante ne fu ma dem maa ñoom ñooy kii mooy yaa an samay samay lépp lañ ñoom moom bàyyi ma ginnaaw benn yoon waaw di nuyu gars yi nekk plateau bi yëpp waaw may ma ñaar original waaye kii may ma ñaar dama ko bëgg dama xiif essence yi billaahi wër na yàlla mais damay woo tey ku mel ndooy suñu mel ni grand ndooy Touba daf ñuy jàppale dañ koy woo ci combat bi ku ci mel ni aada sant yàlla bu dig dañ koy woo bu baax a baax Mourtala Seck suñu xarit Omar Dia Bunaama Ndiaye suñu xarit Yaya ak Anne waa TKG kenkaayit Bamba dafa leen di woo bu baax a baax a baax ñëw jàpp ci combat bi ndax combat bi jëm nii dañ ci soxla jàppale bu baax baax waa Diamond Choose Colobane dama leen di woo. ñooñu la sama waa sama waa société. ah waa gis nga Modou. ñoo ma jox li ma sol nii. voilà dañ maa war a dugal ci yéen a. aja jëdaam. naa di dañ ma commandé rek. jëdaam. waa di woo Baye Baye Tisi borom Colobane di ko woo di woo Salam Tisi di woo Aatu Italie di woo Ndiasse Gabon di woo sama waa koñ bu baax a baax di woo Mouhamed Wilane nag sama xarit sama lépp di woo waa Guèye waaye ma kenn di woo sama copain bëri bagage. di woo waa Kër Ndiallo bàyyi ma kenn waa Fatick. waaw di woo ku si mel ni tamit. foofu la yam foofu yoo ñu ko bind doy na. xalaalu Azim Dada da may xam nga damaa fàtte wax ginnaaw bañ santee yàlla julli seen sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Aliou Maana Ndiaye ak waa Nguma Géwul ñëpp maa ngi leen di ziar di ñaanal xalifa ba Cheikh Mahfouz Sérif ba comme d'habitude rek di ñaanal tamit waa Touba Kane sëñ Fallou xalifa maa koy ziar ak waa Kemer baa ma kenn. merci sama papa may sant yàlla boutique dama koy sant bu baax a baax dama koy woo si combat bi ma jëm. merci sama grand Xaadim Jaañ bu ngi si. Mhm. jërëjëf bu dañ may jàppale guddeeg bëccëg suba ngoon. jërëjëf combat bi suñu lépp la suñu kilifa la ñu ngi waajal màggal gi dañoo ànd ak yow màggal yi nag ndax màggal gi taay gis nga taay yi bañ jugee ba tey combat ba tey bañ jugee ay bor moo ñu topp yu méttee métti instant bi sama yërëm yëpp bor la ba may jógee Kaolack dama yaakaaroon su ma ñëwee kafe bi laa jëm moo sama adversaire neen daa jeexal mais man fi mu toll ay boroma sonol combat bi ma jëm di woo nag képp ñi may ñaanal ñëpp nag du ma leen woo ndax bor lañ ma amel ñoom xam nañ ni bor lañ ma amel instant bii nii ñi may ñi ma doon ñaanal ñëpp bor lañ ma amel nañ ma fay bor bi nag si combat bi ma jëm jaajëf ndax dama fi nekk di woo kenn nag ñoom ñëpp xam nañ ni ma ko kon nag combat bii ma jëm nii ñëw leen fay ma sama bor maa ngi ziar ñëpp nag di jox ñëpp seen waa original nag amuñ seen fay li tax tey ma taamu original dèj maa ko xam ndax niñ ciy jàppee dafa baax ndax dañ koy soxla original amul may ma ñaar kii ñaar pare. may naa la ñaar man mii jëlal jëlal sama kees ma may la jëlal kees bi kees gi ma may la sama nijaay lan ngay wax ci bis bi ak lan ngay wax ci li nga xamante ne ni noonu la jotaay bi demee. Amadou di sant yàlla rek di nuyu waa Sénégal bu baax di nuyu waa 2STV nag vraiment lii rafet na lool mais comme temps bi dafa gàtt maa ngi éviter ñëpp ci màggul Daaru Salaam gi ngi jëm. nga xam ne Serigne Touba Xaadim Rasool benn bés la ma sa sant rakkam ji muy màggalu Daaru Salaam ñu ngi évité ñëpp bàyyiwuñu kenn te xam ne ñun suñu lépp Daaru Salaam la. fu ñuy taxaw ak lu ñu am Daaru Salaam la. nu ñu mel ak nu ñu toll ak lu ñu xam ci keppaaru Daaru Salaam la suñu waajur nekk fa ànd ak maam seex Anta suñu maam nekk fa. ànd ak alaaji tàkko ba tey suñu waajur ànd ak sëñ Mor Faati ba tey man ma ànd ak sëñ ma Mbàkke lépp lu war ci kër gi man mii la war warul keneen lépp loo xam ne nii da ko fay def man lay jàppale lépp loo xam ne nii da nga ko fay taxaw man lay jàppale kon maa ngi sant ñëpp rawatina nag sama doomu ndey Abdoulaat nga xam ne ma ginnaaw mm-hmm. nga xam ne man ak moom mm-hmm. benn bés la kenn eh, benn nit lañu benn nit lañu mm. ak sama xarit yëpp gis naa ñëpp